ci internet Equivox TV entretien exclusif ñu jagleel ko Cheikh Issa Ndiaye di borom xam-xam ñu xam ko ci wàllu ñaan yàlla tey nag ñu fas yéene ànd ak moom ci tolluwaayu réew mi ci actualité yu ñu dëgmal bokk na ci élection locale yi ñu jëm coow yi ci am ak it fitna ci juddu waaye it yeneen ci ay dossiers yi nekk ci penc mi. ci wàllu ñaan yàlla naka noonu it ndax bëri nañu ci yëngatu jamono ji faw nag ñu ràññetle ñi gàmm ak ñi raas dem ginnaaw nuyoo bi ñu sóobu ci waxtaan bi kilifa gi am nañ mbégte ci ànd ak yow ci Equivox TV. aywa asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu yaa imata sayqi odriw lana bi nasratin taati lana bi safarin gannaaw buñ sant yàlla julli si yonent bi salallaahu alayhi wa sallam ñoo ngi lay nuyu bu baax Pape Ousmane dina la tatagal di la ndokkeel di wax ne ñëw nga si sa kër macha allah marhaban ahlan wa sahlan di wax ne rek laaj nga laaj bi am solo macha allah incha allah fas yéene tontu la si benn par benn incha allah rabbi. Eh, dañ koy faral di gis élection saa yu jub ñu dégg ay mbiru sacrifice léegi loolu ñu tudd ci ay puune wala ay xale wala yu ni mel loolu tegtal la lu wér la. élection bu jublisee da ngay gis gars yi dañuy dem di jël ay puune wala ñuy jël ay xale. ñii di dem jël ay dof di soxla yenn cëri dof yi ak yenn cëri xale yi ak yenn cëri pune yi di ko jëfandikoo loolu nag en général maanaam sacrifice ñi nga xam ne dañuy yëngu si wàllu fitis ñoom ñooy liggéey ci côté boobu di soxla ay deret nit wala di soxla ay yuuri nit wala di soxla lenn si ay baaroomi nit pour mën a falu yaa ngi dégg lenn ñu bëgg a falu maire wala ñu bëgg a falu li nga xam ne mooy président waaye nag loolu xalaat kulli bu mu si mën a doon rek àdduna daf ko jarut ndax da lii ñu nekk àdduna kese la àdduna warta jar tey ngay rey nit man gisuma loolu warta jar ngay sacrifice doomu aadama pour bëgg am palute ak nguur loolu daf ko jarut ndaxte li ngay xëcc muy nguur googu tey ngay xëcc noonu di ko wut mu jaral la ngay rey nit mu jaral la ngay sacrifice mën nga ko jot tey suba nga dee kon boo dee yow fu nga jëm ak lan nga layoo sa borom te yàlla dafa fonk bakkanu doomu aadama ba nga xam ne moo tax yàlla lim bind yëpp doomu aadama moo ko ci gënal kon heure boo jëlee sa euh, loxo jëmale ko si benn doomu aadama moo xam danga ko lor si sa loxo wala nga ko lor ko si gànnaay loolu am nga si perte de responsabilité bu rëy jamono bii nag moom xeebu <clears throat> tee sa doom ndaxte gaa yi ni leen gisee moom fi ne dañoo mel ni ñu jëfuru sax boo xoolee ñu ngi yàqante ñu ngi waxante lu ñaaw ñu ngi defante luñ mën ngir lan ngir élection mairie yi ñu jëm élection yi nag man li ma ci gis mooy hmm. bakkan yu bari dana si rot hmm. waaw dana si rot maanaam deret yu bëri dana si tuuru kon nañ def part de responsabilité muy si muy si ñi nga xam ne ñoo ngi xëccoo ak ñi nga xam ne mooy militant yi ku si defoon ndànk rek maanaam sa bakkan si lay rot te gars yi jaral na la ñu def façon mystique bu ne man xam naa ko. comme am na ñoo xam ne mystique yi ñuy def en général dañ koy sànni am na ñoo xam ne dañuy jël ay jinne sax boo jël nit boole ko jinne yoo xam ne moo koy manipuler léegi jinne jooju nag. tey fekkee dañ la ko dugalal mu lay manipule moo lay def loo loo warta def moo lay dóorloo moo lay jamloo moo lay xaañloo yooyu yëpp nañ si bàyyi xel nañ si def euh, nañ si def attention bu baax kon daal képp koo xam ne yaa ngi dem si élection mairie yi nanga nga ànd ak sa sago waaye na nga ànd ak sa xel ndaxte àdduna def ko jarul daal man loolu laa gis àdduna xaañ yeeg dóor yi mooy wàllu manifestation yeeg meeting yi ñuy waajal ak yu ni mel foofu lañ koy sànde waaw comme manifestation yi dina bëri ay rayante ak ay xeex dana si bëri trop ak si diggante maanaam ñi nga xam ne ñooy xëccoo am na si yenn gox goxaan yoo xam ne man xam naa ne carrément ne ay nit moom dana si ñàkk seen bakkan kam si rawatina nag banlieue bi banlieue bi moom ñoom ci laa gën a tiit ñoom moo tax kenn ku su nekk muy ndaw ñi nañ bàyyi eh, seen xel bu baax maanaam ci li ñuy def bu leen kenn sànniloo bu leen kenn xeexloo bu leen kenn rayloo bu leen kenn tuurloo deret ndax tey ki la koy defloo tey moom du ko def loo ay doomam du ko def loo famiyam doomam yëpp ñoo ngi nekk tëdd di nelaw ñi ngi dem Europe di jàngi ñu jël ay xale yoo xam ne xamuñu dara di leen xeexloo di sànni sànniloo kon ndaw ñi nga xam ne ñoo nekk ci banlieue bi ñoom ñoom laa gën a tiital kon nañ def attention bu baax a baax a baax a baax politique bi daal dina doy waar moom Pa Ousmane euh, dégg nañ ku mel ni Serigne Bara Ndiaye tamit di seen naataango wax lu mel noonu ci wàllu ba léegi ñaan yàlla gi ci aju mu wax ni ku mel ni ba ngoom li waral lu mu def mu neex président mooy ni def foo liggéey ñeneen ñu mel ni ñooy it naan euh, loolu lu mën a nekk la liggéey président ba jot ko ba nu la neexee rek noonu lay demee. waaw li mu wax euh, xel mën na ko nangu xel mën na ko ñàkk nangu ndaxte yaakaar naa xëy na moom daf ko teg ci xam-xamam mu teg ko ci gis-gis nam te yaakaar naa ku mel noonu buy wax lañuy wax yaakaar naa mën naa mu teg ko ci xam-xam si lu ma yaakaar naa te nit su demee bay wax rek day fekk wax ji li muy wax ni teg na ko si ay responsabilité yu wér waaye nag nit dana def yenn defin yoo xam ne daf koy niru daal nit ki loo ko sant mu def ko lu ko neex def lu ko neex wax yaa ngi dégg lu ko neex pilike te kenn du ko wax dara kon su boobaa day niru ne moom kii li muy wax dëgg la dafa mel ni dafa jàpp président si mystique waaye nag xam naa daal dina ma jaaxal lool ndaxte président neexu da jàpp si mystique de ndaxte président dafa nekk loo xam ne yàlla moo koy fal nit nguur yàlla moo koy jox nit moo ko jox Macky la jox gi mu ko ko jox nag nekkul ne même portugal nit la ndaxte su fekkoon ne mystique daf koy jàpp dëgg am na ñeneen ñoo xam ne ñoo gën a kawe maanaam waa jooj miy wax noonu te ñoo chaque jour ñoo ngi liggéey président te mënuñ ko jàpp président neexut a jàpp si mystique déedéet man gawuma loolu euh, neexut a jàpp si mystique nguur yàlla mooy fànq dara ci nguuram eh, daal di la jox te yàlla mi nga xam ne nag tey dafa nekk ci pouvoir am am na nguuram gi eh, du ko bokk ak kenn yaa ngi dégg léegi su jëlee dara ci ci boppam rek jagleel ko nit moo koy sàmmal boppam moo koy aaral boppam ba keroog dat bi nga xam ne la fi war a jógee jot mu mu jëlee ko fi waaye jàpp ma ne mbindeef war naa mën a liggéey maanaam a président ba jàpp ko ci mystique loolu gëmuma ko man gaw ma loolu wax dëgg fa yàlla gaw ma ko de gaw ma ne président waras nañ ko mën a liggéey ba jàpp ko si mystique naan ko defal mu def bàyyil mu bàyyi di ko tere kam ab xale te man gaw ma loolu Cheikh Issa moom gëmul loolu mu wax dëgg fa yàlla. ñuy wax nag dossier Adji Sarr Ousmane Sonko it mystique ci ne moo waral ba léegi soriwuñ ci wala àtte bi di di bi waaw dossier boobu moom dama ci waxoon waxoon naa ci sax dama ci waxaat ma ne dossier bu doy bépp juge boo xam ne mën na ko àtte dafa repp laa yaakaar xam justice bu ko tiim di jëmaate Ousmane Sonko ak aji Sarr ragal naa dinga gàtt fan ndaxte dafa mystique ba ëpp ma li ma ci gis lépp mystique la ndaxte joolaayi bawuñu joolaayi bawuñu de ba léegi ñu ngi ci gannaaw Ousmane Sonko di def seen i def moo tax képp koo xam ne daal yaa ngi jug pour atte Ousmane Sonko na dem outil mystique bu doy dool ko mën a atte loo ko may keroog ba koy atte doy waat te gaw ma ne it atte bi dina gaaw nag waaw gaw ma ne àtte bi dina gaaw. du gaaw Ousmane Sonko ndax dina ci génn am déet. waaye Ousmane Sonko ah dana doy waar daal dina doy waar trop pour mu génn si dana jafe waaye pour ñu àtte ko du gaaw te du yomb ndax de keroog bu ñu ko naree àttewaat da ngeen gis maanaam li gën a garaaw li amoon fii. kam si ay dee ay bakkan yoo xam ne dana rot ak yeneen yeneen yàq yàq yu bari yoo xam ne dina am su boobaa. kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax dossier boobu daal lu ma ci wax mooy ko amul bopp manta àtti Ousmane Sonko ko amul bopp du ko àtti. ñuy wax ne Ousmane Sonko it bakkanam a ngi ci xottu gerteeg ëllëgëm ci réew mi yeeg du ci jot nga gis sax am ñu taxaw naan ñoom ñooy sëriñam mbir baatin moom kenn du ko mën a téyeeg yu ñu mel loo ñu mën a wax foofu ci ëllëgu réew mi ak li mu yóotu. waaw ëllëgu réew mi moom wax dëgg fa yàlla am Sonko nit la koo xam ne nit ñi am nañ yaakaar ci moom am nañ yaakaar ne war naa mën a jël réew mi yore ko di ko doxal normal waaye nag euh, sëriñ mi ñoo ngi koy ñaanal ñun ñëpp ñoo ngi koy ñaanal waaye na gën a jug si boppam man ragal naa ay mbiram lool lool lool moo tax na jug si boppam lu mu mën na ko def aussi maanaam kaaraange mi na ko yokk loo ko may rek maanaam mbir day jóyee koo foo xam ne moom mosu koo njort waaw. si at si kanam rek si kanam tuuti rek loolu du sori sax moo tax na gën a jug si boppam gën a farlu ci boppam rek. chaque allah président Macky Sall ñuy wax ni jeexal na nguuram boo gisee nii réew mi metteeg jafe-jafe yi loolu tegtal la ci nguur guy jeex am nga gis-gis boobu ak ñi ko jàpp. waa en général nguur nag buy jeex moom day wane ay misaal boo xoolee ci arab ya ba léegi nguur gi war a jeex nguuru Faris yi ba muy jeex ak yëpp keroog ba yeneen bi di juddu yaa ngi dégg palais Kisra ba poto yooyu daanu di wàcc di toj bar benn yaa ngi dégg yëpp dafa am lu muy lu mu ko doon signalé. moo tax nguur gi buy waaj a jeex day am lu muy signal ay jafe-jafe problème ñuy xeex fii ñii di wax fii yaa ngi dégg loolu lay signifié man da gëm naa ne Macky Sall moom xam naa ne yaakaar naa mu ngi si mujjanteelam dégg nga pour mu pour mu jeexal ci réew mi daal. su fekkoon ne maay man duma ko digal ndax lépp loo xam ne day indi fitna ci dëkk kenn du ko digle te yaakaar naa moom mat na mat goo xam ne te bëgg na réewam bëgg koo xam ne. yaakaar naa du taxaw di wax ne nañ def troisième mandat man loolaa jàpp yaakaar naa daal Macky la nu mu bëggee réew mi ak nu mu bëggee ay xeetam yaa ngi dégg du digle ne nañ def troisième mandat yaakaar naa bu mandaam jeexee moom dina dem si jàmm wala mu xool réew mi ci yan loxo la koy teg si jàmm Sénégal bokk nekk si jàmm man daal loolu laa bëgg. ñu gis ni tamit ñi daanaka ci ñi koy digal am nag ñoo xam ñu mel ni yéen la jàpp ni daal war na ko mën ci wàllu baati wàllu ñaan ak mu mel ni seen secteur bi sax dafa mujj <laughs> ku jóg rek nii yow la yaa mën yaa kii seen secteur boobu tamit jot ko ci réew mi tamit ñu xoolaat ko ndax bëri na yàqu-yàqu yoo xam te ne fa bàyyee ko it waaw ñiy raas déem ak ñiy gàmm ñu war fexe ba ràññet leen. waaw li nga wax dëgg la ñun ñoo ngi nekk si métier moo xam ne fi ne dafa tasaaroo <clears throat> ndaxte kenn xàmmewut kenn mooy sëriñ ak kan mooy fëriñ ak kan mooy këriñ ñett yooyu kenn xàmmeetu ko fi ñu da ngay gis koo xam ne mécanicien doon xëy rek bàyyi mécanicien te ne man tey sëriñ laay doon koo xam ne ak uudi doon xëy bàyyi uudi ne man sëriñ laa doon tey koo xam ne da nga doon gis mu nekk maçon xëy bàyyi maçon ne man sëriñ laa te en général ñu di wax noonu ñoo gën a dàq ñoo gën a ñeme yàlla ñoo dàq wax ñoo ëpp fit waaye nag ñoo ëpp sax koom-koom ndax li ñuy def xooluñ si yàlla ragaluñ si yàlla moo tax leen neex la def yaa ngi dégg léegi nag loolu <coughs> dafa jot Sénégal ñu xàmmee maanaam ñi nekk ci dëgg ak ñi nekk ci tappale ak ñuy fen ak ñuy raas jéem ñu xàmme leen ndaxte doomu aadama <coughs> su fekkee def ne moom mën na fal nit ki ne moom mën na fal président te boo ko gisee moom lu mu lekk sax daf koy të yaa ngi dégg melokaanam maam mënu laa jox melokaan boo xam ne kii war naa mën a fal boppam war a mën a fal président waaye président neexut a fal ab maire neexut fal nit ki bala ngaa mën a fal nit da ngay taxaw fu wóor dara mën a fal nit waaye ñu si bëri tey ñu ne ay lasraar kenn lañ waaye ay sëriñ tey mën nañoo dagg xaatim mu salas mën nañ ko mën nañoo dagg mu rabaa mën nañoo dagg mu saddas mën nañoo dagg mu sabaa mën nañoo dagg samaniya mën nañoo dagg alfa buyut te alfa buyut ku ko mënta dagg mënoo fal nit déedéet alfa buyut bépp sëriñ bu ko mënul mënoo fal nit te ñu si bari tey man xam naa leen sama téléphone bu takkoon ma woon kenn par kenn ñoo xam ne tey bu ñu bëggee isaab tur kalkin tur limu tur bi man mii la ñu ne ma sëriñ bi kalkineel ma tur nangam koo xam ne mënta calculer turu boppam naka lay mën a calculer turu jàmbur bu war ko mën a fal di war a mën a folli yaa ngi dégg kon ñu si bëri tey dañoo war a jàngi waaye waruñoo mën a nekk sëriñ waaye jàngi moo leen war waaw dem jàngaat ca daara ja ñu si bari loolu daf leen a war moo tax ma ne neexoon na bis ñu dajale sëriñ yëpp si benn star kenn ku si nekk ñu jox la biig ak fooy yaa ngi dégg ne la nangam lañ bëgg nga def ko kenn ku si nekk li nga man def ko def ko ñëpp di ko gis boobaa boo leen dajale woon ñoom ñëpp ñi koy woote woo yan laaj ngay laaj yuy wane nii loolu mooy tàqale nag ñi ko xam ak ñi ko xam. waaw loolu ba su boobaa sax man duma ko laaj waaye yéen journaliste yi yéen a koy laaj lan la nga leen laaj ne kenn ku si nekk li nga koy njëkk a laaj xel mën a jëm mooy xam-xam si bitiku xel mën a kenn ku si nekk ñu laaj la yow ndax xam nga xel mën a jëm nga ne waaw wala déet su fekkee da ne waaw ñu ne acca bismillah ñu tolle leen ñu maam Ousmane Pa Ousmane bi lan mooy bitiwam lan mooy rawaanam lan mooy xuddaamam yaa ngi dégg ba xam man nga ko wala mënoo ko soo ko mënul ñu xam ne xamoo dara soo paree ci la ñu la dagal ñu benn musalas boo mënta dagg musalas xasaal yi wala kunt yi ñu xam ne yow nekk sëriñ ndax nekk sëriñ nekku ne da ngay sa bàyyi dafay dafay dee rek bàyyi la ay kayit ay karnas nga ñëw di kamatra déedéet su ko ne kamatra rek la yow mi mën nga ko ndaxte mën nga ñëw jël kaamil bi jël téere yi xool lu la neex nga récupérer ko bind jox nit waaye xam-xam demeewul xam-xam dafa nekk ñaar mooy xel xam-xam boo xam ne day bàyyi ko ci yàlla ak xam-xam boo xam ne yow da koy jàng léegi nag ñu si bëri tey amuñ xam bu mën a bàyyi ko ci yàlla ndax amuñ ragal yàlla ragal yàlla su nekkul si yow xam bi bàyyi ko ci yàlla du ñëw di yegg si si yow ndaxte yàlla dafa war taqullaha wa yaalimukumullah bi ngeen ragalee yàlla man yàlla ma xamal leen xam-xam boo xam ne xamu leen ko woon te yonent saa saa wax ne nee na képp koo xam ne jafee na yaa ngi dégg lim xam ñun yàlla man yàlla ma doon loola xam-xam boo xam ne xamoo ko woon yaa ngi dégg man amila bi ma alima wa rasulullah xelma bo xelma ma ne képp koo xam ne jëfee na xam-xam bi nga xam ne moom la xam ñun yàlla ñu ñu doon loo ko xam-xam boo xam ne moom jàngu ko woon te léegi bari na si doomu aadama ñoo xam ne dañoo mel ni man ragaluñu yàlla ñii ngi caaxaan ñii ngi sàcc ñii ngi mooy yàlla ñii def ay arnaque ñii lekk xalali jàmbur kon te bépp biir boo xam ne day dundee maam di lekk riba di naan riba bu ne allahuma yàlla du ko nangu yaa ngi dégg te léegi nag kàccoor yi mel ni man ñoo bari si dëkk bi ku taxaw rek jóg ne man sëriñ laa nga gis koo xam ne day nekk nit day nekk Europe yëkkati xaalis bu bëri jox la ne la ñaanal ma nga lekk xaalis bi toog jàpp sa njàmbur jënd say ginaar di ko noose yow sa njaboot la ngay dund la ngay lekk baaxut la ngay dundalee sa njaboot baaxut yaa ngi dégg te bëri fi ñoo xam ne man xam naa leen nit yëkkati na ay millions jox leen ñu lekk ko toog jàpp seen ñàmbur jëndee ko ay oto di noos kon nañ bàyyi loolu kon daal lu doon yoon bis ñëw ñu dajale sëriñ sëpp kenn ku si nekk ñu li nga xam tari ko. Euh, waa euh, ak ak ñiy wax dëgg. waa ñi nga wax ni ñoo lay woo ñu ci ëpp ci ñoom te ñu xam leen ñu siw euh, ndax jàppoon yi jot na comme ñu mel noonu it ñu weer leen sénégalais yëpp xam ne ñii war ñoo jaar ci ñoom. comme du yàgg tuuti du yàgg tuuti vocal yi vocal yi nga xam ne ñoom la vocal. ak seen photo yëpp kenn ku si nekk dinaa la ko yónnee yow waaw am suñ noppiwut kenn ku si nekk vocal bi dana la yónnee seen i vocal ak seeni i photo nga xam ñan la waaw kay. ay yàqkal lañ. jamono ji bu Sénégal kuy sàkku ci ñaan ci ni mu lëjee ni mu jafe-jafe lan nga jàpp ni mu ngay war a jiital ci wàllu ñaan ak ci wàllu càkkutéef. maanaam hmm, su fekkee ne da ngaa jóg pour ñaanlu lan nga war a jiital. waaw li ngay war a njëkk a jiital sa yow sa jëmi bopp mooy fexe d'abord aar sa bopp aar sa bopp ba pare moom ngay njëkk a jiital ndaxte jamono bi dafa yàqu da ngay toog rek nga gis nit koo xam ne dalay xool ek bañ la te defoo ko dara wala da lay xool rek ignoré la te defoo ko dara souvent yow li ngay jiital mooy aar sa bopp ba xam ne ku jug lan la day wàcc su wala ku la liggéey dee ku la liggéey yàqu ndax nit ki fekk tëwoo nit ñi rek demoo ba ñaan moytul Pa Ousmane rek li nga bëgg doo ko am moytul Pa Ousmane fekk déggoo loolu moytul diw fekk diggu fekk déggoo loolu li nga bëgg mënoo koo ko am waaye su fekkee heure suñ la laalee rek jekku la duñ la bàyyi waaye su fekkee ku la laal rek feebar wala ku la laal am jafe-jafe ah eh waaye moytu ko de waaye dafa mystique ba yàqu fekk yeggoo foofu li nga bëgg mënoo koo ko am kon bala ngaa dem di ñaan pour affaire ubbeeku affaire bayre li ci jiitu mooy nga ar sa bopp ba nga xam ne kenn du la mën a dara ku la liggéey dee ku liggéey yàqu. man di ci loolu laa ne. liggéey bi nga jàpp ni ci réew mi fan la gën a fësee yàqute bi. ci yan la ci entreprise yi la ci fan la fan. entreprise yi si la gën a bëri ndax dangay gis koo xam ne day nekk si entreprise di fa liggéey ñi nekk si biir entreprise bi moom it di ko liggéey léegi dañuy liggéeyante ñoom it neen ñoo ngi liggéeyante maanaam yow da ngay nekk si entreprise bi di fa liggéey di am sa salaire. kii mu ngi liggéey di am salaire waaye dafa ñàkk fayda boo fayoo ko lu muy njëkk a def mooy dem si sëriñ si Pa Ousmane yaa ngi dégg ba mu yàqu wala ni ñu koy tuddee buñ ko kenn ti bu ko kenn faaleeti wala na génn entreprise bi yow ki ngay liggéey soo ko liggéeyee yaa ngi dégg di nga am bàkkaar aussi yow di nga yàq sa te mën a ko dara en général léeg nga gis ñoo xam ne dañu liggéey ba génne leen seen ant seen place yi nga gis entreprise yoo xam ne dara daanewu ko loolu ay liggéey ay nit ñoo xam ne ñooy nekk si entreprise bi di liggéey entreprise bi ba entreprise bi entreprise bi yàqu wala ñu liggéey patron bi ba patron bi tey maanaam dafay tayal maanaam ci société am dootu nangu jëndi matériel dootu nangu investir ba société bi daanu man gis naa ko am na ñoo xam ne seen morom yi nga xam ne ñoo yor entreprise ñoom yi neen ñooy xeexande jëlal ne ñu dem fii ba Mali fii ba Guinée Bissau pour yàq entreprise bi rek fay ko kamaj yaa ngi dégg loolu am na léegi nag su fekkee loolu dafa am si société bu ñu demee ba nga xam ne ñëpp loolu la ñuy dundee kon dëkk bi day yàqu dëkk bi day yàqu moo tax ñuy tardé moo tax problème yu bëri jafe-jafe yu bëri ndax dinañu yéenante wuñ jàmm kenn bëggul sa morom kenn toppat sa morom ñii ngi yàqante ñii ngi waxante lu ñaaw ñii ngi defante lu ñaaw ñii ngi sëriñantu ñii ngi liggéeyante xam nga loolu su demee ba am si benn peuple peuple boobu nag maanaam pour ñu ñaan yàlla mu nangu daway nekk problème pour ñu am dara day nekk problème am dootu fa yomb weer dootu fa yomb am defaru dootu fa yomb léegi nag Sénégal loolu mooy problème da gis ñoo xam bokk ndey ak sax kenn ki bu xëyee day dem di liggéey moromam pour na torox waa pour na yàqu gis ñoo xam ne ñoo bokk tey benn kër chaque jour kii ngi sotti fii saafara kii ngi taal fii kii ngi yàq fii kër googu nan lay avancé jàmm dafa am te alxuraan daf ne wala rahim naam kasab naa maa bihi min durin maam gars yi bu ñu yërëmantee rek yàlla nee na ñun yàlla ñu daal di dindi lor yi nga xam ne ñoo nekk si ñoom kon ñàkk yërëmante baaxut nit ñi dañoo war a yërëmante di bëggante di soppante ba ko defee yërmande yàlla mën a wàcc si ñun pour yërmaande yàlla wàcc si doomu aadama yi dafay jafe moo tax chaque jour ngay gis maanaam comme li ñuy wax ñu ne buy fukki di gas fukki di suul pënd bee bëri rek waaye maanaam pax du gaaw a am loolu moo fi nekk léegi Sénégal foo mën a dem ni ñaa ngi yàqante di waxante lu bon kon bu fekkee ñii dañuy defar ñii di wax lu baax ñii di wax lu bon kon dëkk bi day day yéex a développé dëkk boo gisee nu mel nii nga xam ne loolu moo ko waral chaque jour ñi ngi yi di wax lu bon di ŋàññi ay jaamu yàlla ñu sell lañ ñu ngi di yàq di leen bonal ñii ngi xas sëriñ si ñii ngi saaga sëriñ si yaa ngi dégg loolu su fekkee dafa am si réew rek réew mi dawee tardé kon nañ bàyyi jëf yu ñaaw ak jëf yu bon yooyu. du ñàkk nga bàyyi ñi lay seetaan dara ci ñaan luñ mën a wétali ko. waaw léegi nag danañ maye li nga xam ne mooy ay façon xam-xam yoo xam ne dañ ko may jaam yàlla yi si képp koo xam ne moo ngi dégg su fekkee si wàllu kaaraange la dañu may benn dog muy xas bu na laa wa neem la kilo 450. képp goo xam ne bañ nga ku liggéey chaque jour day wér xasbunallahu wa ni'mal wakiil 450 suba ngoon su fekkee da nga am soxla bu rëy rëy boo xam ne soxla bu jàmp la da ngay def xasbunallahu mille ni'mal cent cinquante soo ko defee ñetti fan soxla boo mën a xam yaa ngi dégg ak nu mu mën a toll yàlla dana la ko fajal moo xam xaalis nga bëgg moo xam soxna nga bëgg moo xam tukki nga bëgg xasbunallahu wa ni'mal wakiil 1350 mooy 450 fois 3 mu jox la 1350. yaa ngi dégg su fekkee nag da bëgg say mbir du yomb say mbir loo dugg mu yomb da ngay wér du yàlla tiif yàlla tiif moom ngay def yaa ngi dégg mille deux cent quatre-vingt-dix loolu la ñuy wax sarifu mooy limu sarif li mu sarif nag buñ ko waxee mooy dix latif maanaam cent vingt-neuf multiplié fois dix mu jox la mille deux cent quatre-vingt-dix moom moom la ñuy wax sarifu maanaam ku koy wérdu si latif doo torox bi ilaa yom diine benn mag mu baax moo ko wax mu ne képp koo yaa ngi def yaa latif yaa latif 1290 bay laa yoma dine doo mas torox sa morom doo mas a ñee sa morom kon sénégalais yi maa leen may loolu mayuma leen ko sax dama leen ko baaxee ndax man fii laa ko fekk yaa ngi dégg Ousmane yaa yi ma bëgguma si wax sax waaye dinaa ci wax nag bii boo gisee bii pour wàllu ngóora la néew kàttan yi nga xam ne dañoo néew kàttan léegi ba mënuñoo sëy am jafe-jafe sëy wala bu ñuy sëy dañuy gaaw a daanu wala seen ndoxu say seen ndoxu man wi dafa dem ba yàqu po bii lañuy jël soob yàlla ku ko jël maanaam dinga sant yàlla bu baax a baax a baax di sunguf bii nag ñoo ngi koy jëlee Bamako lañ koy jëlee mbir mu doy doy waar la yaa ngi dégg waaye bii nga gis nii dafay faj maanaam lu mat juróom-ñeenti feebar yoo xam ne daf koy faj juróom-ñeenti feebar yëpp moom lay faj lu si mel ni tension da koy faj ak jabet ak hémorroïde ak ballonnement même bët yoo xam ne bët yi naqari la sax daf koy faj aussi dafay raxas deret aussi moom it da lay may kàttanu sëy boo ko xasee ba jël benn yoon jortu ngay jël beneen garab maanaam tey su fekkee jël nga ko guddi mën ngaa sëy si guddi gi lu mat fukki nga ko sëy te doo gaaw a daanu incha allah te aussi dana dëgëral sa kàttan bu baax a baax a baax kon yéen yëpp na ngeen dem wuti ko mbir mu doy waar la moom la yax tey sur umur li sifaawul amraat moom la tudd képp ku ngeen gis nag euh, bu mel nii xamal ne daf ko pirate kenn rek moo ko fi am muy Cheikh Issa Ndiaye muy Taysiru Umur li si boo xoolee da gis moo nekk nii am ki ki ku koy jaay rek xamal ne ñun jaayuñ ko kenn joxuñ ko kenn ku ko bëgg fii nga koy wutee si gis na nag am na ñoo xam ne ñoo ngi koy pirate waaye original bi fii la nekk macha allah ku ko ku ko am daal di nga sant yàlla bu baax a baax am na it ay saabu yoo xam ne dañ ko defar saabu yi ba tey moom Mali lañ ko Mali lañ jëlee maanaam xam-xam bi Mali lañ ko jëlee yaa mu nekk saabu yoo xam ne yu day waar ñetti façon saabu la benn baa ngi waa façon saabu la nag dafa am bu xonq bi yooyu nekku fi yi gars yi ñoo ko jël ba mu jeex dafa am bu xonq am am bu vert am bu weex bu xonq bi li muy dindi mooy liggéey koo xam ne ñu liggéey moom lay dindi yaa ngi bu weex bi nag boo gisee li muy dindi mooy koo xam ne dafa am rab wala ma am jinne yu koy topp wala guddi bu tëddee du mën a nelaw day gént di jàllal ba ko bët bii lay jël wala jigéen joo xam ne dafa am faru rab maanaam chaque jour rek su dee day gént wala buñ ko bëggee takk takk bi day esec bii day jël bu ko sangowee incha allah dana am jëkkër aussi rab dina ko bàyyi jinne dina ko bàyyi ak moo xam góor la moo xam jigéen la lii nag xam-xam la yu doy waar yoo xam ne saa ñu koy ñu jël sungu fi di ko joxe waaye dañ koo defar mu nekk saabu nit ñi di ko sango mu nekk loo xam lu naturel la man nga ko sangoo fi nga nekk kenn du xam li nga yore dañuy foog ne saabu nga yore fekk lu doy waar moom yore léegi bu xonq bi moom day dindi liggéey bu vert bi moom pour bayre la ak ubbeeku su fekkee da ngaa bëgg neex nit ñi wala nit ñi sopp la moo xam góor moo xam jigéen moom ngay jël kon mbir la yoo xam ne yu doy doy waar la ku ko soxla nag mën nga ñëw fii keneen koo keneen koo ko déggee mu koy wax xam daf koy pirate waaw du dëgg waaw macha allah waaw ñu ngi sant yàlla bu baax di wax ne kontaan nañu bég nañu seen bi yàlla na yàlla doole leen yàlla kàtt na leen bu baax a baax di wax ne rek nañ ragal yàlla. nañ topp yàlla nañu bàyyi fen nañu bàyyi jëw nañu bàyyi xaste yi ñu nekkee ak iñaan gi nga xam ne moom lañu nekkee da yénti sa sa waxoon ne alxasuudu laa yasuudu moom ku iñaan du nekk sang bi laa yam diine ndax iñaan mooy mooy yàlla boo xam ne amul bànneex bépp mooy yàlla boo koy def yàlla mën na laa ci jox bànneex bam des kiñaan ñaan bay ki ñaan sa xol bi day métti sa bi di jeex ki ngay iñaan yàlla di ko yokk yow ñu lay bindal ay bàkkaar boo dee ñu dugal safara yaa ngi dégg kon iñaan baaxut yonent bi dafa ne iñaan dafa mel ni day lekk jëf yu baax kam nii safara di lekkee mat kon loolu eh, lu jara moytu la kon iñaan baaxut nañu eh, ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaan yàlla réew mi ñu nekk yàlla na fi yàlla def jàmm suñu président bi Macky Sall yàlla na ko defal jàmm ñeneen ñi nga xam ne ñoo des yëm ñëpp yàlla na yàlla defal leen jàmm defal leen tawfiq defal leen une taysiir in uridu ila islam mastata'tu ma tawfiqi ila billahi tawakkaltu wa ilayhi unib jërëjëf ñu ngi koy gërëm di ko sant Cheikh Issa Ndiaye la ñu àndoon seen entretien exclusif ci waxtaane tolluwaayu réew mi ak li nga xam te ci lay yëngut ci àllu ñaan gërëm ko sant ko beneen numéro beneen gan gërëm leen sant leen yéen ñi bàyyee xel euh, di internet Equivox TV